على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على وسلم اللهم صل سورة فاتحة التي بحرمة لا Alhaji Muhammad Sakhir Bitok di grand imam yëmbal iya, te yang dapat imam ndax ne moom kenn du ko bëndi moo ko wayoon ne moo ko Dia yéen a léegi Renji. Renji? ne ko ren Kira ci way wi mu Kira ci la ñaar gàttam ak juróom weeru koor bi nekk. weeru nekk ñaar fukki fan mu tool fële tool mu tool fële tool bi yàlla rek mën a natale. kon njaga. mais kon njaga. waram ne tëb tëb nu bàyyi mooy dama. wala ne tëb tëb nu bàyyi ci diine ji. lii diine yi. ba ba daj. ba daj. ak li ñu déggoon. na moom. la ci kilifa yi. la ci kilifa yi. jamonoy Seydina Mandior. jamonoy Seydina Mandior. mu may ko di jaar. woo Seydina. woo Seydina. ci jàpp daal di njëkk a woo. dama di yónni yëmbal. ak yu Seydina. dem di jaar di